mu yegg si waaye Adji saar mu dafa mel ni moo nekk foofu ci ginnaaw euh, Maître El Hadji mooy wàcc ni sol ko sol sol sol sol costume sol costume am ah maître maître maître si jàmm un moo nekk ci ginnaaw oto be moom lañ naan na wàcc Adji Sarr mooy wàcc noonu Adji Sarr euh, Gabriel Kane moo njëkk wàcc sol yére bu bëla bi noonu waaye Adji Sarr moo sol yére bu rouge bi Euh, maître nee na leen wàcc leen aji saar mu ngi noonu di wàcc sol yëre bu rouge bi euh, jiital tànku ndeyjooram teg ci suuf wàcc di defaru pour euh, jël ay bagage am pour mu maître da nga ko naan ko dépêche-toi tàng na Adji Sarr la maître nga ni maître nga ni nee na ko bàyyi sama loxo Adji moo jàpp na loxoom ne ko taxal xool leen mu ne ko bàyyil sama loxo avancé nañ dem aji saar mooy dem noonu Adji Sarr mu ngi noonu dem ànd ak Gabriel kan ak ki nga xam moo di euh, maître El Hadj Diouf yegg si nañ ci tribunal bu Ndakaar bi nga xamee ni dix heures euh, toftal na cinquante huit minutes waaw waaw mu ngi Gabriel muy nuyoo noonu Adji saar mu ngi noonu aussi Adji Sarr mu ngi noonu aussi yegg si na maître ngi noonu taxaw waaw taxaw nañ ku nekk di manipuler sa téléphone euh, xaw ma nag lan moo leen tere dugg si dugg ci biir li nga xam ne moo di euh, tribunal bu Ndakaaru euh, aji Sarr ak ki nga xam ne ni moo di Gabrielle kan ñi ngi dugg nañ ñi ngi dugg ñi ngi dugg ci biir tribunal bu Ndakaaru euh, yéen ñu ñuy seetaan ci seneweb tv seneweb point jàppale na Adji saar bi dix heures jotee ba tegal cinquante huit ci la yegg si ànd ak ki nga xam ne nii moo di Gabrielle Kane ak ki nga xam ne nii moo di Maître El Hadji Diouf moo Gabrielle Kane nag ñoo bokkoon oto wàcc daal di dox dugg Maître tamit wàccee ci benn bi daal di dox dugg dugg si nañ ginnaaw bi nga xam ne moo di Ousmane Sonko yegg si na aussi tamit ca biir fa nga xam ne moo di tribunal euh, bu bu bu bu Ndakaaru comme ni ñu leen ko doon waxalee rek ki nga xam ne nii moo di Adji saar moo yegg si noonu euh, bi mu àndee ki nga xam ne moo di Gabriel Kane bi nga xam ne ràññee nañ ko ci ci ci combat bi ci dossier bi nga xam ne ni moo am ci digganteem ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko euh, di leen fàttali ne Adji Sarr euh, jotoon nañ koo déglu le 14 avril 2022 fii ci tribunal bu Dakar après daal cee toftal ki nga xam moo di Sonko c'est le 4 novembre.